الله الحمد لله وكفى والسلامان على المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اصطفى ورضي الله عن الشيخ الخديم قاد الله ما اختار له mbokki jullit yeeg mbokki taalibe yi seen yóbbalu koor biñ leen baaxoo amalal tey ñu toll ci bindu juróom ñaareel bi fan yépp ñu ngi woon ci seenu weer weeg ya ca aju mu ne la bu nu seenoo weer wi nag ba gis ko weeru koor day daal di dugg si waaye buñ ko seenoo gisuñu ko bis boobee nga xam ne xëy na dafa bari ay niir ba mëneesu koo gis dañuy jàpp ne boobu yow mu sakki dañ koy tuddee ci fiq maanaam yow mu sakki mooy bis boo xam ne moom dañuy sikk sàkka ndax fanweereelu fan lay doon ci weeru lu wala ndax xay xal xal set naa nekk benn fan ci weeru koor loolu mooy yow mu sakki maanaam séenu nan weer wi asamaan si lëndëm na ba kenn mënu koo gis euh, ñu naa ah, kon nag dañuy def la xadis ba waxoon mooy fa in ghumma aleykum fa akmilul iddata na ngeen matal weeru saxmbaat ba mat fanweer bis boobu nag léeg-léeg dañuy xëy suba tàmbalee def yi fi njóobeen defe ne weeru feeñut ndekete weer wa feeñ na leg leget mo baña bañ waye bu waaye kulli xaalis bis bobu bisub sik sàkk la ndax man na am nek fan wéré lu fan ci baaxlu man na amit ñu xey suba yëg ne ndekete weer wi feeñoon na nga na ne kon mooy benn fanu weeru koor loolu ñu tëddee yow musaki <coughs> yow musaki bobu nak euh yoon day tere ko ko wor rawati nga bëgg ko wor ngir ne ah, man dal na wor rek suma ma xëyee suba bu fekkee nee na nu dafa bokk ci weeru ko ma xam ma woro na bu fekkee bokku ci ma fa ko def naa fi loolu yu mel kooku wérut kooku du dagan <coughs> xadis ba sax dafa waxoon ne man sooma yow mu shakki faqad asa abal xaasim ku woor bis boo xam ne dañuy sikk sàkk ndax dana bokk ci koor gi mu déet nee mooy nga yonantu bi alayhi salaatu wasalaam <coughs> waaye fiiwul fuqahaa yi nee nañu bu dee koo xam ne day woor kóoru ko aada bis boobu mën na ko woor te dana baax ni koo xam ne dafa fas yéene woor Eh, maanaa weeru baraxlu wépp xanaa weeru baraxlu wépp mën a fas yéene naa kaa woor kooka kon bu wooree ba am ñaar fukki fan ak juróom-ñeent benn fan ba koy desee ñu seen weer yu mu xaw a lëndam mën na ko boole ca koor ga naka noonu ko amoon boru weeru koor wala jàll woo xam ne fayu ko ko woon bis boobu mën na koo woor ngir fayee ko ko naka noonu koo xam ne dafa waroon a kafaara wala koo xam ne dafa nisaroon misar boo xam ne euh, ghayra muayyin la maanaam daa euh, ni ki moo waxoon ne man kat sama baay ba tukki nekk ci ay jafe su ko su ma ko yàlla indilaate ak jàmm nisar naa nisar naa woor benn fan waaye wut nag benn fan dana saa yu ñibbisee rek bis bu mu ñibbisee daal bis boobu dinaa ko woor kooku bu yàlla dogalee waajuram woowu ñibbisi ci bis boobu mu yow mu sakki ñu seenu weeru gisuñu ko bu ko neexee mu yéene ko woor <coughs> euh, waaye yëpp nag boo ci woor yàlla dugal ñu xëy suba mu bokk ci weeru koor ñu xëy suba ñu yëg ne ndekete weeru koor feeñoon na nun noo ko gistoon rek wala waa dëkk bii ñoo ko gistoon waaye dëkk ba ñu dendal gis nañ ko su boobaa yee yëpp day yàqu kon du doy ca du doy ca na nga woon bu njëkk ba waaye du doy bisu koor gi maanaam dañoo seenu weer wi gis nu ko nga ne kon naa fay weeru koor wa ma amee woon ca weer wee jàll naa fay bis ba bis ba ma amoon ci weeru koor wee jàll nga jàpp ndekete démb ñun ñoo ko gisut waaye dëkk bii ñu dendal gis nañ ko su boobaa koor da nga doon fay yàqu na te it du doy ci weeru koor gii nga nekk kon du ci ci ki nga xam moo ko nisaroon ak ki doon kafaara euh, yooyu yëpp ñoo ci wér ci benn <coughs> euh, dagan na ci ki nga xam ne dafa ñibbi si jóge ci ab tukki koo xam ne dafa tukki woon nga xam ne yoon may na ko mu bañ a woor kooku dagan na ci moom bu ñibbisee ci bëccëgu weeru koor dajanteeg soxnaam dajanteeg soxnaam gisoon deret ba deret ja dog kooku dagan na ñoom ñaar ñu ànd maanaam ñu jaxasoo maanaam ki nga xam ne dafa tukki woon léeg sa gars yi koy faral di lépp naan ki nga xam ne dafa joteeg soxnaam ci bëccëgu weeru koor te dara fekk ko jël dañ koy jax maanaam yow mi nga xam ne da ngaa nekk tukki yoon may na la nga bañ a woor yoon na yàlla nga bay nga bay war donte ci masabu imaamu Malik sax dañuy wax naan kooka lañ gën a sopp ci moom mooy moo war ndax alxuraan moo ne wa an tasuumu xayrun lakum bu fekkee mën ngeen a woor day moo gën bu ngeen di tukki may nañ leen ngeen bañ a waaye ku ci mën a woor moo gën waaye teewul rek kooku moom bu ñibbisee ci bëccëgu weeru koor te fekk wóorutoon ndax yoon mayoon na ko mu ñëw dajanteeg soxnaam moom it gisoonte rek ba ci bë ci bëccëgu weeru koor soxna sa set ñoom ñaar mën nañoo jaxasoon Eh, naka noonu bu fekkee ne da am soxna soo xam ne du ab jullit soxna soo xam ne du ab jullit ni kii da takk ab chrétien wala ab ab juif eh, yàlla dogal ñoom lu war a bokkul seen koor dagan na tamit nga jaxasoo moom waaye bu fekkee nag da ngaa takk ku dul ab jullit eh, yow wóoroo ndax da ngaa jub tukki wala da ngaa feebar wala lu mën a doon yàlla dogal nga ñëw moom nga fekk ko mu nekk ci koor goo xam ne seen kooru diine la <coughs> nga xam ne ñoom kon yow góor gi bis boo jógee ci tukki ñëw nga xam ne wóoroo doo sañ a soxna sax <clears throat> doo am na ay borom xam-xam yu koy wax nag waaye li gën a ci mazhab bi mooy ne asbax euh, moom la wax euh, ibnu xaasim ibnu rusdi ñoom ñëpp nee nañ euh, laysa lahu an yamnaaha min at-tasharru'i bi diiniha maanaam boo amee sa soxna muy topp diineem sañoo yàq ak kooram ci bëgg jaxasoo moom loolu doo ko sañ moo tax loolu noonu rek la demee bokk na ci yi ñu sopp ci weeru koor mooy kaful lisaani anil fuduli maanaam boo waree ngay bañ a wax waxi caaxaan waxi caaxaan yooyu nag boo ko déggee ñu koy wax mooy daa fekk ne muy wax joo xam ne amut njariñ loola loola dañ koo sib nga di ko def ci weeru koor ay waxi caaxaan ak yooyu waaye bu fekkee wax ju xaraam moom kooku xam ngeen ne dafa xaraam kooku moo xam ci weeru koor moo xam ci lu dul weeru koor laataa weer wi ñëw dafa fekkoon mu xaraam moo tax kooku mu tax ñuy wax kaful lisaan anil fudul fudul mooy wax joo xam ne xay na doo ci am bàkkaar waaye doo ci jëlee tuyaaba dañuy bëgg boo wooree daal dugg ci jàngum xasida yeeg jàng alxuraan beeg salaat wala nabi yeeg yooyu te bañ koo bañ a bàyyi noonu bu dee wax ko na mu woon ci budul la ba léegi naka noonu bokk na ci li ñu mooy boo wooree bu jant bi sooyee ci saasa rek nga gaaw dog koo yeexee naan damay xaar ba ñu julli ba noppeek dafay xaar kam déedéet tumma atimu siyaama ila layli boo waree ba jant bi eh, denda naga nga ba nga bala ngaa julli kabla salati eh, waaye nak bëgguñ nga nga defa def doogu njóobeen maanaam eh, dog rek toog fa di lek lekk lek bañ julli ba naafila ba nopi nga doog a jóg doog a jublu sa julli kooku nak baaxut weeru koor dañ ciy wute tuyaaba waaye do ci wàññi sa tuyaaba bokk na ci loolu mooy topp ay lekk ba mu yàqal la waxtu julli timis bi loolu baaxut naka noonu bokk na ci li ñu sopp mooy it nga yéex a xëdd xam nga xëdd dañuy wax ne boo xaajee guddi gi ñetti xaaj xaaj bu mujj ba buñ ca àggee rek xëdd jot na maanaam bu la neexee tàmbali xëdd waaye dañuy sopp nga yeexe ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ne dara yéexe xëdd ba nga xam ne day xaar ba nga xam ne salaatu lu tolloog maanaam ay minute moo ci des loo xam ne manees na cee jàngi ñeen fukki aaya alquran yoo xam ne dañ koy jàng jàng mu sell lu mel ne sootu naba yi am may tasaaluun ku ko doon jàng njàng moo xam ne day indi atte yeeg ahkaam yeeg yëpp di ko respecté njàng moo xam ne du njàngum faax-faaxu nga di ko jàng ba mu àgg diggante bu toll noonu daana day xëdd xaar nga xam ne diggante bu toll noonu moo ci des ñu doog a ñu doog a salaatu kon dañuy bëgg nga xaar ba nga xam ne salaatu ci misaal ay dix minutes moo ci des nga doog a xëdd nga xam ne boo xëddee rek daanaka da jàpp def li ngay def rek daanaka julli daal jot loolu lañu sopp waaye ku ko mën a teelet ba tey def nga bu baax waaye sunna sa daal mooy yeexe ko ndax moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon def bokk na ci li sopp mooy booy dog ci weeru koor nga dogee lu tooy nga dogee lu tooy loolu sax mooy sunna te booy dog it nga dogee ca benn nga dog moom an yakuna witran mu tóol nga dogee ca benn eh, bañ a def yu ni jël yu bari rek eh, dégg nga seexandoo nga dogee lu tooy ni tàndarma te bu fekkee tàndarma la loolu ci gën sopp na tóol wala lu mel ni ndoxum sam-sam wala yu mel noonu bu fekkee amoo tàndarma nga eh, guux benn guuxu daal rek moo xam guux la boo xam ne guuxu ndox la wala muy guuxu café wala bisaab lu mën a doon waaye na nekk rek lu tooy looloo sopp nañ ko ci sopp nañ leen booy dog nga wax baat yooyu ñëwoon ci xadis ma muy allahumma laka sumtu وبك آمنت وعلى رزقك أفطر فاغفر لي ما خدمت وما أقر من نعم يا الله يا ولي يا مدين بلي بما ما وار آه، يا مدين بلي بما أمغم يا الله يا مدين بلي بما دوغي بوار جو لا جوخ معلومة نغور وعلى رزقك أفطر يا الله ما جيجل سمي بكار يجيك سمي بكار يمجو بايوخ ذهب الثمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ñaara marwo ma marwoon ci digg bëccëg day fi mu toll nii dem na jeex na du dara diggante bu gàtt rek la euh, dégg nga euh, waaye sama bëri yi nga xam dafa wowoon lépp ngir bëgg a naan bëgg a lekk fi mu toll nii tooy na tooyal naa ko daana te fi mu toll nii li ci na a neex mooy am naa ci sama tooyal mooy coono ba ma dajoon ci bëccëg bépp fi mu toll nii jeex na lépp luñ ma teewoon sañ naa ko def te teewul maa nga denc sama tooyal loolu wax nañu alayhi salaatu wasalaam euh, daana ko lu Euh, te nga xam ne sopp nañ ko ba léegi mooy nit ki di bañ a xëdd loolu dañ koy tere nit ki di bañ a xëdd euh, ndax yonent bi daa wax ne tasaxaru fa inna fi suxuuri baraka dee leen xëdd ndax xëdd barke ci nekk am na benn xadis boo xam ne nga xam ne nit ñu njëkk ña daan nañ ko woor ci yeneen diine yi ak sunu koor gi li leen wutal rek muy xëdd muy xëdd kon loolu boo ko defee day tax tuyaab yi yokk incha allahu kon xam naa si nañ fi ñuy yëkkatee jotaay bi bu subaa ñu àggale dugg ci bis ne sopp noonu ko ko woor ndax bari na tuyaaba lool ak la ci tey incha allahu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.